yàlla nag nee na booy joxe azaka njëkk koo jox faqiir waaye bu dee li yoro di def mooy togg ay ñam maasuur soo koy joxe yàlla nee njëkkal njëkk la jox miskin faqiir mooy am na d'accord waaye li mu am doyu ko miskin nag mooy ki nga xam ni amul dara dara dara ba pare rus sa jug génn ci buntu jumaa ji taxaw di tàllal loxo muy benn ñu ni ko bo buñ ci paree yàlla ñu jox kan mu ni yatiiman ngeen doog a jox jirim yi jirim xam nga mooy kan mooy ki baayam dee jox leen jirim góor ga nag Mansour nee na kooku du jirim dañu ni ko kan mooy jirim mu ni jirim mooy ki ñàkk xam-xam ak yar laysal yatim man man intaha abawaahu min hammil xayaati wa xullafaahu zalilan inna al yatima huwa alladi talqaalahu ummanta xalat aw aban mashghula jirim mooy ki nga xam ne Mansour ñàq na ndey ñàkk na baay d'accord ci benn waaye góor yàlla ba nee na jirim du kooku mooy ki ñàkk xam-xam ak yar amoo xam-xam amoo yar kooku mooy jirim waaye jirim bi ñàkk baay yàlla ne na ngeen ko ko jox yoro jëfe na ñaar yooyu sàmba ñetteel bi xam nga mooy ban mooy wa asira ak prisonniers yi Seydina Ali radiyallahu anhu karamallahu wajhahu Mansour dafa toog këram am fa benn boolu añ ci kese ma misaalal leen ko noonu mu leer leen benn boolu ceeb woor ba ngoon mook waa këram yëpp am ñu lu ñu lekk fi ñu toog ci ngoon gi rekk rek naa Ali raxasook waa këram bay bëgg lekk yàlla daal di yónnee ci kër gi benn miskin ñëw taxaw ci buntu kër gi asalaamualeykum. Seydina Ali ni ko waa salaam mu ni ko man miskin laa woon doon wut lu ma lekk yàlla jegtal ma fii ma ni naa fi ñëw Seydina Ali yëkkati bool bi jox ko ni ko demal mu yëkkati bool bi dem Fatima ni ko lu mu ni ko nañ muñ inna laaha ma as-saabiriin ñu toog muñ ñaareelu fan bi Mansour Seydina Ali amaat benn bool kon démb lekkul ba tey mu woolaat ba ca guddi ga jëlaat benn bool teg bay bëgg lekkaat rek am ku nuyoo ci buntu kër gi asalaamualeykum Seydina Ali ni waa aleykum salaam mu ngi toog Fatima ngi toog Xasana Xuseyno ngi toog mu ni man ab jirim laa démb ba léegi lekkuma yàlla tegtal ma fii ma ni naa fi ñëw Seydina Ali ni yëkkati leen bool bi ngeen jox ko ñu yëkkati bool bi jox ko ñu yëkkati bool bi jox ko ñetteelu fan bi kon ñaari fan lekkul ñetteelu fan bi mu toog lekkul fi mu toog lekkul rek jékki yeeg ba caag am ku nuyoowaat ci buntu kër gi. Muhammad akmalta ahsanta matal nga yóbbante bi la sëñ Sidi Maxtaar Kunta yónni woon waaye it ahsanta rafetal nga kon fa tabaarakallaahu ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla dolli sa xam-xam. waaye dafa mel ni danga danga bëgg a daaneel yoro te jataay bi day doog a door dama bëgg buñ jullee dañoo ne xaadimu rasuul waaw bu ñu añee ba pare dañoo wax xaadimu rasuul ñu dugg ci xaadim gi ak li indi xaadim gi ak cër gi ni mu màgge ak fi sëriñ Touba jaar ba yàlla tappal ko garaat gi waaye ki mu doon xaadimam kana mooy rasuulillaahi kooku it sëriñ Tuubaa da cee xuus lu bari ñu bëggoon bu ñu añee ba pare laata suñu kilifa di fi agsi sëriñ sa Gay ñu xuus ci woyu sëriñ tuubaay li mu wax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci ci màggal gi la bokk ci cant gi la comme waxtu julli nag fa tabaarakallaahu dafa dafa dafa jot te waxtu julli moom bu jotee leneen fa tabaarakallaahu amatul luñ fa war a def ah dañuy daal di joxe kàddu yi daal di julli ba pare xéewlu incha allahu tombe kilifa yi agsi ñu continue sëniñ sàmba yàlla yàlla sàmm la bi jaay rebal moustapha wasalaamu aleykum wa rahmatullah lahu zuwijat binta bintu rasuli batuulu bi waalidi sib tey mooy bàyyu ñaari seex ya muy seyduna ali afdalil xalqi moo gën ci mbindee fi jumlatan mboolem seen gënal ga mu gën lahu zuwijat bintu rasuli batul ca la ko yàlla maye Fatima nga xam ne mooy albatul mu doon borom këram seex ya di ay doom di xasana xuseenu du ñu seex nag duñu seex yoro xasana xuseenu du ñu seex de Adama ak Awa du ñu seex d'accord xasana xuseenu magante wu ñu at téere ñii nee nañ juróom benn weer lañ magante ñii nee nañu juróom-ñetti weer waaye magantewuñu at waaye duñu seex waaye dañoo nekkoon ñoom ñaar seen maam bëgg leen yent bi daan na sujjóot di julli xasan yëg ci kawam yent bi sujjóot fa lu ma 30 minutes suñ ne ko lu tax siggi woo danaan su may siggi damay bañ a gaañ xuseynu yent bi di leen xool ca mbeddi Medina ba ci yàgg waa Medina yëpp di leen critiqué naan ñii de nee nañ ay sëtu yonent bi lañu dëgg la sax bàyyi Mikaayil waroon nañ leen a critiqué ndax gis nga xasan fase na ci ay jabar ba fase 99 jabar téere yu tudde ko mitlaax fasekat bi fase na 99 jabar bis seen maam di leen xool ba ci yàgg rek yonent bi di leen xool ci mbir na ba ci yàgg rek te ci bisul ñetteelu fan ba ñu joxe prisonniers yi lekk ca lañ ko amee seen maam di leen xool ba ci yàgg daan ni huma ñaar ñii Seyda Shubbaani ñooy sangi ndaw ñépp fii jannatil ulaa ci aljana yi seen boroom ñu ni ko yaa ko wax mu ni déedéet kazaaka rasulullahi seen maam kaana yaquulu yéen tibee leen di xool ba càgg daan ni ñaar ñii bu ëllëgee bu ñu duggee aljana xale yëpp bu ñu dekkee ñaari xale yi ñooy nekk seen sang muy xasana xuseenu xam nga loolu sàmba ci luñ ko amee xasana xuseenu nekk sang ndaw ñëpp ci aljana séedéet naa Fatima nekk sang jigéen ñëpp ci aljana xam nga noo koy xamee séedéet naa Fatima tey moo jur maam Abdul Qadir Jeylaani moo jur maam na Cheikhuna Tijaani sama am wax ni yoro sa maam wax ni wa kullu wirdin yuridil murida li xadratillaahi walan yaxiida سواء انتمى الى الجيلاني موي مام شيخ عبد القادر الجيلاني او انتمى لاحمد التيجاني موي مام شيخنا التيجاني سيرن توبا كل بيري جامي يالله لا او لسواهما من الاقطاب كومو دون تي غورو يالله رك كو نين تي بيغي اندال اندلي نك موم داخ اذ كلهم قد ان على صوابي كو تي نيك يون و جوب لا تالال جيم تي بروم كون كوكو ليبيري نيب كوكو نك حسن حسين حسن حسين موم تي باني جوخي جيريم يالك jox miskin ba lekk jox prisonnier ba lekk ca leen yàlla defal loolu kon yooyu yëpp Mansour yàlla yàlla defal ko yoroo ci barke rent bi yàlla na yàlla defal ko koy ci barke maamam bàcc li yoret def bu ko soxna màgget jurul woon du ko mën soxna Binta bu ko jurul woon du ko mën bari na fii ci dëkk bi ñu am alal dañoo néega jël benn nag di ko joxe ngir yàlla al irq innal irqa nag da saasun sidit dafay rogalaat te nit lu mu nàmp ca ci moom dëgg la kon li nàmp muy leer mu nàmpe ko ci soxna su tedd soosu mu jële ko ca maam Cheikhul Khadim loolu lay wane kon nag yoro yàlla na yàlla sàmb la yàlla na yàlla barkeel la xam naa jullee ngi jot loolu la ñuy waxtaane rek ñett la nag sàmba waxtaanagul nañu cant gi xam naa bu tisbaar bu gaa yi dikkee eggale ko incha allah xam naa bu gaa yi ñëwee ñi war a eggale ngoon gi bu ñu ñëwee incha allah xam naa ñu eggale ko bàyyi yoro rek li ñu doon wax tey mooy kàddu Serigne Sidil Muxtaar Kunta sa xarit suñu kàddu kër Mansour ngir yàlla ak kóllëre gis nga léegi rek maa ngi nuyu Saliou Ndiaye magam a ngi nii Moustapha Ndiaye Baye Yoro njaay bi ñu tuddee Baye Yoro be mii Baye Yoro Ndiaye sama maam moo ko may weer de salaatul faatiha mu nekkoon Saliou a dégg nga nee na dëgg la maam a ko may weer de salaatul mu nekkoon médecin wam yàggoon ak moom bokk ak moom benn koñ bu ñu dëkk kon ñëw nañ fi ngir tànk yi bari waaye sëriñ Sidil Mokhtar Kounta daal xam naa ne bu ma ñëwul woon dafay wut yat wona ma ñaar yoon ni ma fexel ba nag ma demal ci yoro nag ma demal ci yoro tay lam ma waxon duma ko wax na dama ba ñoro téema dañ mo nang fa dem suwa ba ngon nga doo dem te mom lu ma sante yoro inshallah ñu defal ko ko fekk fi maasur ndaw mi li ñuy def maasur ñu ko dakk fuf mo ñu ko dakk mak ñu ci at ëpp ñu lépp waye mom ku wàcc la ku modesti la te yonent bi neena yoro lu la yàlla defal nit ñi iñané la ko ba mu dess lenn ñu ne ko moy lan mu ni simplicité kullu zin ni'matin mahsudun illa tawadu' yéen itam neen lula yàlla defal nit iñane lako ba mu dess len ñu ni ko mooy lan mu ni mooy nga simple rek bo simple ken du lako iñane waye waaye leneen lu simple ñep iñane lako kon bay Samba xamna fofu la ñim julli insha wa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa الحمد لله الذي خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أعطى ومنع وضر ونفع ووصل وقطع وهو منزه عن الشبيه والنظير أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين وأشكره شكر عبد شكره بلسان عربي مبين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك الحق المبين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر وعلى اله وصحابته وخلفائه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين mbokki جلتي ñongi yekati ay kàddu nuyo ak ziyara diko jële fa gëna sori ci suñu xol diko tek ci loxo mbolem ñi ñu fekk ci barab bu tedd bi wa it tabaarakallaahu li wala fi di wax ni ku wal ku wal mburu tëdd tudd rek ñoo koy tek ci loxal xaaj yoro tabarakallah mu yobale géew mbolem njabootu kër gi yépp ñoo ngi nuy it bu baax di ziyaara mboolem ku ñu fekk ci barab bi muy jur walla muy mag wala muy rakk wala muy soppe wala muy xarit tabaarakallaahu teg ko ci loxo suñu xarit suñu lépp di sëriñ Samba Ndiaye mu yóbbaale ñépp géew tabaarakallaahu moom suñu mag la suñu xarit la suñu lépp la te it boroom taxawaay la te defarkat la it fu mu yendu baa mu fanaan fa lu yiw rekk la fay wax ak luy defar ma xàmmee ko it bu baax ci ron sëñ muniiru suñu mag di alxalifa tabaarakallaahu mu fay nekk di fa jëf-jëfin yu rafet yoo xam ni deful lu dul boole askanuk alxaaji ahmad baro njégén te loolu moo am solo gis nga léeg-léeg nga gis këru sëriñ si di tàkk tibbante tànk yi bari te du ñoom ña fa dëkk de du ña ko bokke nit ña fay ñëw rek la ñooy dem ci kenn ku ci ne ñu dugg fa di wax kon nag moom yëg nañu liggéey bu rafet bi muy def ci sama kër maam kon ñu seede ko nuyu bu baax a baax al oustaz Mouhamad Mbaye moom it di suñu soppe di suñu xarit dafa baax nee na ci télévision bi rek la may gis waaye xam na ni bu toogoon këram woolu ma sax ma bàyyi lépp lu ma doon def fekk si ko waaye léeg mu jaar kër maam alaaji rek daat nii bu sëñ bi ñëwee ngeen nuyu ko tabarakallah maa ngi ciy jot nag ñoo ngi lay nuyu di ziar sëñ Sidi Mokhtar Kunta xaj yoro dama wax léegi ni maa ngi jéggalu ndax foo waroon jiitu dalal gan yi soo demee bañ lay dalal war ngaa wax lan mooy ngant bi taxoon nga yéex a ñëw yàlla dafa dogal ñu am benn taalibe bu nekk ca Ziguinchor ca université boobu di jàng baayam génn àddina démb bi ñu jullee timis ba noppi tabaarakallaahu ñuy jàkkarloo ay kër ñu woolu ma wax ma ko ma nekk ca doon ko waajal ak diggante démb ak tey ba léegi ma ni leen daal nañu bàyyi ba julli tisbaar ba pare wala boog lu ko jege ñu mën a dem waajal ko yóbbu ko ci barab ya bi ñu ko yóbboo ba noppi ma dellusiwaat ay gan jóge ba Fatick ñëw te man maa fa nekkoon tabarakallaahu doon wax ak ñoom ak li jënti léegi am na ay gan yu jóge Dakar waaye dama mujj tënk rek ni leen mënumaa bañ a yegg tabarakallaahu ci bés bi loolu moo tax tabarakallaahu ñu xaw yéex a ñëw waaye bés bi day suñu bis kër gi di suñu kër ndax léegi Muhammad a ngi tudd samam njàng xawma dara waaye lépp sama turandoo daf ci contribuer bu baax a baax su ma ñëwaan vacances gàmm wala korité wala tabaski ma ñëw mun ma Boubacar Sidibé mbaa yaa ngi jàng ma ni ko maa ngi jàng mu ni ma am nga ay téere ma ni ko am na yu ma am waaye am na yu ma su ma demee bay demit joxoon na ma waaye damay ñëw tàgguwaat ko su ma xëyee fajar ba ba ba wasifa def li may def ba pare toog fii may toog mboolem ku ma xam mbaa ku ma xamul am na ab di lim maanaam lim ci ab dog boo xam ne sàlloo naa ko sàlloo naa ko di la ko defal mooy waral suba gi mu daan toog ci balkon bi fii ci kaw ci wetu càmmoñ bu toogaan ba ngoon tabaarakallaahu mu dem ca fee mu daan waxtaane ca gannaaw ci mag ña nekkoon foofu kon moom léppam yàlla la woon kon it yaakaar naa ni war nañ fi wax waye bés bi li ci jiitu mooy sant yàlla dama wax ni xam nga yàlla dafa ni maa bind doomu aadama min tiin mu bàyyi ko ci ban banit bu salte yàlla ne ci laa bind doomu aadama mais bi ma ko ciy bind xam nga booy tabax faw nga am maam ndox moo ménager ndox ma ménagé nag nutfa la min maa mahin ndox mu doye di moo xam ni ku ñu ko taqal tey nga fomp ndox mu ahlu badr ñëw teew ci sama kanam ni ma looy bëgg a wax loolu du dimension hankay bi ci des mooy sëriñ Tuubaa it ci kawe gi mu kawe bokku na ci dem na ba ni ida katabtu tazza arsul وصبح الملائكة الباق نينا دمنا ببا يكتي سما خليمة بقى تق سيدنا محمد نينا عرش جاي ني رانفو سي ملائكة يمو ينغو ني رانفو سي مرق رقي ني نلخو ني دوم جارية الله جي بقى تق نمبر رسول الله كوكو ديماشون لا خمغا لو كمي بيغا نيب يوتي مقاما بندني اني عبد الله wa xadiimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam dari man daal soxlawuma dara soxlawuma son excellence soxlawuma assayid soxlawuma alqutbu soxlawuma alcheyxu almachaayixi xam nga lu ma soxla abdullahi jaamub yàlla buy liggéeyal sayidna muhammad moo tax yàlla jox ko lim ko jox subhaana alladi asra bi abdihi la yàlla wax dani yàlla dani sel ñal na jam ba nga xamni rañane nañu ko parce que mom kesse mën mënta dem waya bi abdihi jaamam ba muy Seydina Muhammad Serigne Touba ni jaamub yàlla la man tawada allah rafa allah wacc gi mu wacc bopam motax yàlla yekati ko motax khalaqa al insaana min tin summa jaala naslahu min sulalatin min ma'in mahin ñu ni sunu borom momu اعطى ومنع يلني كأما لجخ انا لو جاي دي ابل بنيو لين دي يوبو انسما آه اليسيت منو نياك دي منو نياك يلني كأما لجخ ويا كنياك ما لخن كنياك ما لخن xam nga mbolem lu yalla bind suñu and no won ngir jariñ benn nit mënuñu ko waaye yàlla nee na mboolem lu ma bind suñu àndandoo woon ngir defal benn nit mënuñu ko lu dul ni man yàlla maa cay ànd suñu borom wax ci xadisul qudusi ni mboolem lu ma bind bu ñu àndandoo woon taxaw am benn bëgg-bëgg kenn ku ci nekk danaa la jox la nga yittewoo du wàññi ci li ma dese dara dana mel ni puso bu ñu taqal ci ci ci ci géej la taq ci puso ba laa leen jox waaye la des ci géej ga moom laa dese man yàlla sëriñ Tuubaa ni addurru wannafu min arrahmani laysa min biidin wala suudaani sëriñ Tuubaa nee na lool ak njariñ ci yàlla la ne nekkul ci ku ñuul nekkul ci ku weex wa wasala wa qataa suñu borom nee na ku àgg maa la àggale mais nag ku ñu dagg maa la dagg ku ñu dagg maa la dagg moo tax gis nga sëriñ Tuubaa radiallahu anhu tolluwaay bi mu ci doxale xam nga lele ma dégg ben way ni serigne touba daf ko neex mu dem géej su ko neexul won du dem géej wax na dëgg de wax na dëgg asiru maa al abraari xiina asiru wa danna al ida anni huna aw ahlu badri ñoo ngi ma dar nee na maa ngi dox di bëgg réagir ci samay kaw noonu ma téye leen xam nga ci histoire dangay dégg ñuy nettali bi mu jógee Touba di dem di di dem ndar pour wuyu buur bi xam nga bureau bi ci ndar bari na lu ci gaa yi di wax amul man maa ngeeg lettre bi sëriñ Touba bind gouverneur u ndar maa ngeeg moom bari na luñ ci wax na gaa yi amul waaye daal li mën a xew. manam ci noor la te ba mu demee ba ci yéen wax nañ ni taw na lu waral taw ba gouverneur bi dafa dajeeg moom mu ànd ak lu mat quatorze personnes mu ni ko yow laa doon jël si te fekk na boobu moo ngi préparé pour xeex ak Serigne Touba sababu jàpp na ni moo ngi dajale ay armée pour dal ci kawam waaye keroog bi mu waxee wax ju tàng joo xam ni yëg nañu ni. manam wax ji àndul la war asma wal ahlu badr dañu réagir wax nañ ni melax yi tàmbale di daw asamaan si tàmbale di deun ba tabaarakallaahu la fa xew-xew asiru ma al abrari hina asiru sëriñ tubaa ni bi may dox ma ngi ànd ak gañu bax yi mais wa zanna al ida wa zanna wa zanna njortuna wa zanna borom usul dani تجويد للمرين على حد سواء فانقلا ما نقلا بني نه زن نياري مير اند تك بن نوتول مروم جوت نين واي بني شك نياري مير يو اند بن بن نوت مروم والظن تجويد للمرين على حد سواء فانقلا ما نقلا لو لوخ تي زن نينا وظن جوتنا العدا نوني ني باني نك من خادم رسول هناك فوفو asiru ab prisonnier la mais fekk que duma ab prisonnier ñom ñoy prisonnier tax ku yalla dimbali wul xamoko mais ci ban bis la genn bisu samedi gaawam xana loolu it Benen symbole Yalla Bimi bi y toroxal un sabt wala nitu a yalla daawuda yi bisu samedi un toroxal وكونوا خلدة خاصئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين بوب السمد لون غي جن سمدي دي سنون مينا كن نيا فكي فان اك جيروم نيت سفر خرجت يوم السبت ثامن عشر لخدمة المختار في سهر السفر Serigne Touba ni maa ngi génn samedi fukki fan ak juróom-ñett fas yéene liggéeyal Seydina Muhammad mais ci weeru safar xam nga safar ci la yaa ngi koy wax léegi 18 safar ci la Cheikh Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu jotoon maqaamam bu mag ba muy maqaamatul katmiya maqaamuhu maktuumun an kulli lwara سوى النبي ما وراءه وراء كلام 18 سفر لون مي 18 سفر تي سيدنا محمد مانام تي سفر سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام تي لا واتي وعام اهدا محتازا على جلل دعاه في سفر مولاه للكرم لول سيد الحاج مالك واخ ويتيرو سفر ديزو سفر تيلا شيخ احمد بامبا رضي الله عنه فاسيني جن ريومي لجي لي يونتي بي دم غابون ديزو سفر وي نك لي جن ييمي حاج سامبا سيرن توبا داني بس بي ماي جن نغن ما سي سانتال يالله مونون نباي با دم با نيو باسكو كوي دم دي دايك سي نون تخمو لوي فك nga ni bés bii may génn ragal naa ni am naa ndam ndax dama fas yéene ji liggéey li ji rasulillahi kon nañ ma ci santale yàlla mais sant yàlla sant yàlla xam nga dafa am benn boroom xam-xam bu wax ni awlaytani niaman abuux bi shukriha wa kafaytani kulla al umuuri bi asriha فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها dani yàlla defal nga ma ay xiiwal maa ngi lay sant su ma ko mënee tudd danaa ko tudd di ko biral mboolem luy xeeti danger fegal nga ma ko waaye fekk maa ngi dund danaa la sant ba ma faatoo sama yax ci biir bàmmeel yi dana la sant yow sunu borom Serigne Touba ni cant gi lottu naa ci parce que ndam li dafa rëy kon nag santale leen ma yàlla motax bés bi jot xaj wo ay mbokam wo ay dëkkandoom wo ay am di jàmmam wo ñep def ay bende dépenser ci lo xamni mene mënee su koo takk ni kay leen ñu jàppale Serigne Touba radiyallahu anhu sama mam joju ci sante ji mi sante boromam waya xam nga lu ko ubbé jàng alquranul karim nga xamni Serigne Touba radiyallahu anhu wax na ni boo demee dafa wax ni سرين توبا يونتي بي نينا كوي دك ووتال دك نو بو باخ بالا نا دك شيخ القديم ني كي گن سي دك نو يلا تان موي سما دك نو موي القران الكريم جاولت بالفرقان ربي المعين ملكت نفسي وزحزحت اللعين لي گنا گراو سرين توبا ني جاولت بالفرقان ماغي دكالي القران ماجي دكالك القران ربي المعين سما بولم بي اجي ديمبلي ويا ملكت نفسي لتي سيرنج فخي بوم موم سباكن ميتريزكو لولو تي سيرنج سي خمغا لي لي nga gis ab سيرنج بو مولو توب سيرنج بي ني واخه باكن مو لنان لا باكن لاي واخه واو طالبي مي نك نيوكاي مودي كومبراند سيرنج بي دي جيفه باكن ньо خامني سيرنج بي باكن لاي جيفه Sëriñ Tuubaa ni li gën a jafe muy bakkan fexe naa ba maîtriser ko maanaam sama bakkan sama taalibe la wa nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala xubbi ridaai wa in taftimhu yanfatimi Mouhamadou Bousayri ne bakkan dafa mel ni xale soo ko feralee mu fer waaye boo feralul bakkan bi day continuer di bëgg nàmp nee na ni xale di mel nee na noonu la bakkan mel Sëriñ Tuubaa ni malaktu nafsiya moom naa sama bakkan maîtriser naa sama bakkan wa zahdaxtu lain nee na seytaane ci boppam mi gaa ñëpp di daw seytaane bu ma gisee damay daw jawaltu bil furqaani ñu ne ko ndax ca la yem mu ni déedéet كتاب كريم ولا كتاب به نرجو من الله رحمة وننجو به دنيا وأخرى من الكرب راجي أحمد برنجيجن دمي ديغ موي نتالي نينا بيمو ديمي إيجيبت فيبر نينا نيوبو كو باري بور مو فاجو نينا بس موي دوخان توتيا موني ما باري بو سيو بوبو نين خام نينا غيس بن واي ها أه؟ benn waaye ngi yor benn moyote fan nee na ñu teg ca benn kaset nee na kaset baa nga tàmbalee ca min alxaq jaa alxaq lil xaq dëgg gu bàyyi ko ci dëgg dëgg andi ko dëgg gi alquran la bàyyi ko ci dëgg mooy yàlla dëgg ko andi mooy sidna jibril mu delluwaat ci min alkarim moo ngay wax naan kitaabun téere boo xam ni narju yaakaar nañu rahmatan yërmande min allahi ci yàlla waaye bihi ci téere bi وننجو به دنيا واخرى من الكرب به muccug ادناك الاخره نيونكو ñoo به تي تيري بي نينا مو بروم موي na mu woo borom moyto fan nga yor di ko tek li ci ne kan moko wax mu ni ko Cheikh ahmed Bamba Sénégal la dëkk nee mu becc ci lool ndax mom ab sénégalais la waye wax juri jooju حجر تمبلكو تي القران الكريم تا القران داماي واخني دنج واخني يالا امنا نيتي جوني تور نيتي جوني تور ني جيل نيتي تيميري تور يي دخن كو تي باتو مانام نيتي جوني تور ييب ني جيل كو دخن كو تي نيتي بات موي الله رحمن رحيم motax so jange bismillahir rahmanir rahim jàng nga ñetti junni turu suñu borom yi motax ñu ni basmala bokoy sikkal da ngay doon nitu yàlla waaw amna dog buñ ci sikkal waaw da ngay tekkali ko kumpa lépp lu wara xew nga tek ci sebet bët waaw xam nga gouverneur Ndar wolu ne Serigne Touba ay yoon من nitu yalla amul droit jukta amul ndigal سيدي حاج مالك وينك وخير ولا تختل فكيف اختيارنا وان مغبات الامور تغيب نيت يالا ليپ نومي داف داي جيل استخاره بروم خموني الاجي مود بروم بيمي دك في تيس اك كل موم الاجي ني مو ديمي مي دو تي نيغلام الاجي مود بروم بغول وون دك تيس يونتي بيني كو ديمال نغا دك léeg ku mel ni man di kaas nit góor gi nu mu mën a njëkkee ci dëkk bi rëdd lu tuuti lii mais yonent bee ko tracé ni ko lii mooy dëkk bi ni ko fii mooy ngay tarbiya fii mooy sa wanag fii ngay denc say njaboot sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bi muy wër pàkku Tuubaa bi mais rasuulillaahi ko piloté rëdd dëkk bi joxañ ko ni ko fii mooy barab bi motax bi gouverneur wolo serigne touba amul ndigal mu tok motax muñ andi ñaari xarajtu yowma sabti yi ci bir terem yoy jazaa'u u shukur njëkk naa wax ni maa ngi génn mais boobu amul ndigalu génn mu delluwaat ba ndigal li ñëw mu ni maa ngi génn mam na ñëw mu ni ko Cerno fii dara matumaa wax ndax sàllaaw ba ngay wax ak gouverneur ba sànq lañ ba doon dox ci sa wagg yi sax nga koy dàq maa ngi jàkkarloo ak moom nit yàlla noonu lay doxe moo tax booy zikkar bismillahi rahmaani rahim am na lim boo ciy sikkar saa yu ay saa yoo toogee ba ay nit di waxtaan sax day mel ni loolu benn rediffusion buñ lay tegal rek waaye fekk ne jàkkaloo na nga moom bu yàgg loolu basmala da koy def loolu dafay am da ngay dox ba aksi ci action boo xam ni fee yi nam doon demee yëpp day fekk nga xamoon ko alaaji men jigéen alxamis la génn àdduna dimanche la woote ni damay faatu dimanche te war a génn àddina alxamis affaire nit yàlla ngoog moo tax basmala yooyu boo xoolee nombre bi daje ci ñetti turu sunu borom yi سيدنا محمد دم ليلة الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج موتاخ سيرن توبا كو ييمي لا بو خولي ديماسيون بوتي نيك ريك ليلة الإسراء والمعراج ني غارال تي موم نينتي جيجوك ندوخ جيجوك سانغرا جيجوك لم اك ميو يونتي بي لاك يالا نيكو جيجي فان لا جوغي فان Seydina Jibril ni ko xam naa fa muy versé mais xaw ma fu mu bàyyi ko yonent bi ni Seydina Jibril fu mu bàyyi ko mu ni ko laaj ko yàlla mu ni ko fu mu jëm mu ni ko moo ngi versé ji Kawsara mu ni ko waaye yow laajal ma yàlla fan la ñeenti géej ci jóge mu ni ko benn bi daal bu ndox mi moo ngi bàyyi ko ci mii mu bis mi fa la dexu ndox ma di bàyyi ko mu ni ko dexu sàngara gi moo ngi bàyyi ko ci haaw allahu gi mu ni ko dexu lem gi mo ngi bayiko ci mimu rahman ci mu ni ko dexu meew gi mo ngi bayiko ci mimu rahim ga motax nit buy jàng bismillahir rahmanir rahim bu ëllëgé sidna Muhammad neena amul sikki sakani day dem aljanna xajoro ni bende gi baxna waye nak nañ ko tambalé jàng alquranul karim ban moo ci top mu togg ay bende jox nit ñi xam nga sëriñ tubaa way na ci ay xasiidaam ni fexe ba suural benn biiru aji aji xiif nee na moo gën tabax junniy jumaa parce que jumaa yi gars yi bu ñu xiifee duñ fa dem de coow lee xala bari rek wala dugg ci jàkkari ji boog di ëbbali ëbbali gu amul app waaw léeg-léeg koor gi nga dugg ci jàkka ji gis waajuru kooru koo bu soof boo xam ni da lay leem ni kii moom doo ñàkk ci yàlla mu ñuy naafila naafila yiy gën a dee dangay gis ki ne allah akbar <laughs> bàyyi ko lool sëñ Tuubaa ni fexe ba reggal benn biir moo gën tabax junniy juma parce que gaañi bu ñu xiifee du ñu julli ji de moo tax boroom xam-xam yi di werante ci ñaari gaa yu doon dem Màkka ñu ñëw ba Bagdaad ñu dajeeg benn faqiir mu ne man de damaa tumranke ñàkk awma lu ma dunde ma leen di yaakaar yéen jaamu yàlla yi benn waay ja jël paas bi jox ko waa ji ni ko jëmal nga jënd ci ay ñam nga dimbali kooku keneen ki ni ko man de loolu duma ko def continuer dem màkka waaye bi ñu ñëwee fuqaha yi di werante ci ñoom ñaar ku ci ëpp yool mais ñu ni mais ki joxe paasam moo ëpp yool parce que moom dundal na bakken dundal na bakken ba pare dem na màkk ndax yoon saa saa moo ni woon innama al amalu bi niyat wa innama li kulli mri in maa nawaa kenn ku ci ne la nga yéene ngay am yéene woon na dem na màkk dem màkka dem na màkka mais en même temps dundal na bakken kon am na ñaari yool ñu ne waaye kële dem màkka rek la am te xamul ndax yàlla nangu naag nangul dafay am nag gis nga màkka gi la ila léeg-léeg nga gis ku dem naan labbayka ñu naan ko la labbayka mu naan labbayka allahuma labbayka لبيك الله لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك نيانك ولا سعاديك يو دال كين ويو لك يا في عندي سبب فك بوبو تجنا بوب غاني ني مانا ديل مو ديل لين ني مانا تيراندي مو تيراندي لين تجي كوت سبا باغا باغا ني دوتول دماتي نات دفنا اي بري لبنا لديس لديس نيو فك مو ديس منوتو لا فاي fexe fexe fexe lijjanti xam nga sénégalais dañoo bëri affaire fexe ba dem màkka ida xajajta bi maalin asluhu danasun fa ma xajajta walakin xajjati lcayaru dañ ne képp ku jël alal ju lewul yóbbu màkk dañ ne ajoo de ajal nga jonga may rek soo ñëwee daal fexeel ba jël sa benn jaaro xaalis bu baax fexe monte wut sa kaala yu baax wutit tabarakallahu yu weex yu am solo nga taxaw rek ñu naan la alaaji ngay jàng faatixa di ëf waaye ba nga duggee lañ ñu génnal ah moo tax aj ga la am te xamul ndax nangu na am nanguwul mooy ñaareelu point bernde waaye li ci gën a yéeme bi ñu berndee ba heure añ xaj yoroon ah am na suñu mbokk yoo xam ni kat ñun ak ñoom ñoo bokkoon nekk ci dëkk bi tey yàlla dogal na caabi féete leen gannaaw te kat fa ñu ne billaahi jombul kenn am na ñoo xam dañ leen taqal yóbbu leen fa am na ñu ñu tuumaal yóbbu leen fa am na ñu ñu tooñ yóbbu leen fa am na ñoo xam ni defuñu dara ba problème yaay am sax fekkewuñu ko mais yàlla moo tuddoon ci seen dund ni danañ fa jaar xajjoro ni kon man sama maam dafa jaaroon foofu nekk résidence surveillée ñu téye ko dundam yépp amu ci benn liberté kon nag bu may def bis bii nii dama koy jàppale ñamañ war njëkk a xalaat war naa bokk ca ña nga xam ne ñoo nekk ca prison ba ca dixième gële mu yëkkati ay nga yóbbu fa ana ban moo ci des dajale jaamu yàlla yi ñu toog waxtaan ci diine parce que loolu yi dafa am solo gis nga jotaayu diine dama wax ni day diine mais jotaayu diine yoo xam dañuy toog wax suñu àdduna ba mu neex ñi ñu lekk suñu lekk jug dem baax na de waaye fexewoon na ba am kuy wax ci diine wax ci diine dana gën a baax fexe ba waxtaani li sëriñ tubaa jaar ñu mën ci jàng ndax dafa am benn boroom xam-xam bu wax ni laa taqul qad dahaba arbaabu lhuda kullu man saara ala darbi wasal nee na bul tëdd rek lekk ba suur laay sa koll ni ah gaañ baax nañu kenn mën ñu ne Sëriñ Tuubaa nga mbëkk miir bi alaaji Malick Gaye nga mbëkk alaaji Boro nga mbëkk Cheikh Ibrahim Niass nga mbëkk Laayeen nga mbëkk te fa ñu jaaroon fas yéene woo faa jaar lu dul toog di yéem te doo jéem baaxul de bu ñuy yéem it nañuy jéem rek kullu man saara ala bi wasal boo jaaree ci yoon wi ñu jaaroon te wàccoo soo mënta àgg fa ñu àggit bu ñu gees soo gis la mais bu ñu jaaree ci yoon wi nga jaar ci ñàll wi bu ñu gestoo duñ la gis ba lay yóbbaale moo tax taalibe bi bi ko Cheikh Mouhamadul Fadal fekkee ci yoonu njaareem bi mu estobe ko muy sëñ fàllu mu dugg doog a xam ni sëriñ fàllu la mu ne ko waaw kay mbàkki nii rek de soo léegi yowmal xiyaamit fu ngeen ñu fekk yóbbuñu Cheikh du Fad ni ko ah, waa ji naa la fekk ci yoon bi kat dama laa fekk ci yoon bi mën laa yóbbu waaye boo jaaroon ci gannaaw du ma la gis kullu man saara ala darbi wasal sëriñ Tuubaa it radiallahu anhu waxit wax ju yéeme ni sama dund xaaj naa ko bi dama ciy tagg sayidna muhammadin bi dama ciy nekk ci tey jaami bi dama ciy nekk di woy sama téere bu màgg bi di alquranul karim anta alkarimu ana alxadimu dahran udimu fii ka sanaayi mu jàkkaloog seydna muhammad nan ko ant yow anta damirul muxaatab la ki nga jàkkaloog nga koy wax nan ko yow rasulilahi alkarimu yaay ku tedd ki ana man cheikhul xadim ana man ana man dégg nga maay ki lay liggéeyal dahran udimu sama dund yëpp damay saxoo di la tagg yow seydna muhammad كان رسول الله موتاخ غيسغا داما دوغ بن اوتو دندك بن بامبار اك بن سوسي دي وقتان فك نني ما ليغي تا جمعة جما نيكون والله توتي مريتان ريتان صح واي بامبار بي ني سوسي بي مالا غنا بغ رسول الله سوسي بي نيكو بالله مالا غنا بغ رسول الله بامبار بي نال ni soose bi légui ciowli dal bu mu bari légui ku gëna bëgg rasulillah xam nga noy def nañu debbulu kaani Saddam rek kenn ku ne wan ku wan ba mu yegg ma xam ni yaa bëgg Seydina Muhammad xam nga soose day bëgg kaani ñu dëbb kaani Saddam yoy rek soose bi ni ko sacc wan daal di jàllale soxlawul ndox bambara ba nekk fa di tislek di tuflitek di génn ay ñand xit ak tàmbale di ñaq ak daal di mu ni ko wa yow lu xew mu ni ko billahi dag ma gëna bëgg kaani me gëno ma bëgg gëna bëgg rasulillahi motax mam Serigne Touba radiyallahu anhu ni ñu sayyidna Muhammad man man al Mustafa ma bëgg Muhammad man mi jël sama doom yëpp dippee sayyidna Muhammad motax legi ma dégg min nan zakal malazul lazi arju najat bihi arju najat bihi dunyan واخرا uxran قوله جار gaañi daf mel ni sama yaram a ngi bëgg a tàng ku bëgg Seydina Muhammad loxo ci kaw bàkkaar ci suuf Saturne sa micro yi dafa bari du ma ko mën a gàddu nag dox ma benn rek ma téye waa gaañi ana ñi gën a bëgg Seydina Muhammad إيه لقد شكو بكا تشوف خادم المستوى نينا ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به خم ذاك تكلم عرب اسم إشارة لا دفع أم ذلك أم ذا أم ذاك دبن بوني ذلك كسوري نقوي وخ بنيت نكين لنغني ذلك كلي موتاخ موني لام جيل البعد بوني ذاك موي كينغا جاكالو boo nee za mooy kii dañoo jege yante am bu gëna sori am bu jege tuuti waya am bu gëna a jege mooy zaaka ak zalika ak za soo demee ci ibnu malik mom la koy tassal tasal xaadimal Moustapha dafa gis rasulillah waxna wax ni mom ni al mustafa dawul dawul daawul teqalikoog sidna Muhammad motax bu koy tag da fay indi ismu ishara xam nga ismu ishaara doo ko wax kooku fi nekkul dafa am li ñuy wax damirul ghaib am li ñuy wax damirul muxaataba boo nee huwa moom mi fi nekkul waaye boo nee za mooy kii ma jàkkaarloo boo nee ka mooy kii moo tax yàlla bi mu jàkkaarloog muhammad naan ko alam nashrah laka sadraka wa wadaana anka wizraka allazi anqada zahraka wa rafaana laka zikraka fa inna maa al usri yusran inna maa al usri yusran fa ida faragta koo jàkkaarloo nga ko yox فرغ واذا فرغ واذا فرغت كوجاكالو فانصب موتا خادم المصطفى دا فا جاكالو سيدنا محمد موتا مونانكو زاكا يومي دي سما جولين دي رسول الله ارجو لا يا كالو وخلمين خادم المصطفى نينا يا رسول الله يا ولا يا كار ذاك الملاذ الذي أنت النجاة سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا المصطفى سيدنا محمد الآخرة محمد يا محمد سيدنا في أب مي سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد ñu ne ko xaadimal Moustapha nan nga mën a yaakaaree rasulillahi te ziyaara ji woo Seydina Muhammad sëriñ Tuubaa ni sama jëm ma mooy mais sama làmmañ ak sama xol moo ngi dëkk ca sang ba rasulillahi xaj samba sëriñ Tuubaa ne ñàkk a dem gu ma ñàkk a dem Madina dama koo def bor boo xam ne gàlloo naa ko jusite xeeral xaj yooloo Serigne Touba ne li tax déwuma Màkka moo tax bés bu ne waxtu wu ne seconde bu ne cees bu ne danaa tëgg Seydina Muhammad ay bay jox ko ko وهو النجيب الذي في وصف خلقته eh rasulillahi sëriñ Tuubaa ne boo koy xool ci bindam da nga naan ko tedd la boko xolé ci jikkom da ngay xamni rasulillah deug deug mo gën gañi jikko mboolem ko yàlla musa dimbali nga nek borom xam-xam mëno fexe fexe fexe ba tag rasulillah ci manu lamu jankontel ak lamu am ci ngeenel mëno fexe ba jot fukil ba bay jot juróom-ñeenteel ba باي شخص صالح نينا بروم غوتن جابنا لن جورول بايام ني سيرن توبا نينا اهل الفصاحه اهل الفصاحه تلبي سدا باي شيخ محمود الفادل بروم ديندي ديف دي ديندي كورير مو ديندي باي شيخ محمود الفادل ما دنگا ميغا خامني موي باي شيخ محمد لوين بارا ميغا خامني موم لاي جوي تو نوبي غنو مام سيرن توبا ني اهل الفصاحه تلبي سدا مدحو اهل الفصاحه serigne touba ne ku sa lam min musa fecc ko ya ngay bind ay way ya ngay jegle rasulillah ay tag خادم المصطفى ني سا يو يغي ني جانت بي فاج ني كين دوتول وقتي بي ديو اه امنا كو ني وخ كعب ابن زهير قال الموخ لك كان موي كعب ابن زهير دفع ام واجي ني تودي كعب دوم زهير بايام داني لين بوما في جوغي نا نين توب رسول الله kaab ni duma ko topp di bind ay xasiida yu bon di saaga rasuulillaahi sidna muhammad ni neenal nañu deretu kaab ku ko gisati nan ko rey kaab ibnu zuhayru bëgg a tuub dem ci rasuulillaahi waaye li ko jaaxal mooy nu muy jaar ba dem ci muhammad ndax fu mu jaar ñu ni ko sa waa ji tëkku na la أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مقمول قام من زهير نيدنا لقى تبرم كسيدنا محمد رحسان رجا قام من زهير نيون كراسو إلى يمور نكون نخوا جل دون ساجا بني ويجس كنام بجتوب نخدم كبالم ديت رسول الله ني دنا كبال مموري كنام جني كم ماي قام من زهير من مين جوا خوني كم جستنا مراي مولم لنياو ولا لي أي ساجا مالكم مسجح جزيت خيرا وهي أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل إن الرسول لنور يصطدى به مهند من سيوف الله مسلول رسول الله واجمني وانكم woon جسنا كري ku ko بمو يكتي ko سنكو كوني ko waa ji waa ji ni rasul ni woon ku ko gis na ko rey mu tagg Muhammad mu yëkkati mantoom sànni ko ko xam naa maam Serigne Touba yonent bi jox na ko lu ëpp doole manto waaye jox jox na ko jumaay Touba jox na ko lu ëpp manto ndax Cheikhul Khadim bind na ci ay xasiidaam ni yàlla ci boppam yabal na Kaaba ga ñu indil ma ko fii Touba ma ko كن كعب وحسان امنا كوني وحسان ابن ساجد سن توباني امنا كوني وحسان تقكة رسول الله والبوسير دمل امنا تقكة رسول الله ابن تدي محمد البوسير سن توباني جلني يسيني ديبلوم رسول الله تسن تقي يفعي موت لا كلير ñu ne ko xaadim ana lu Muhammadu Busayri wax mu ni dani fa mablaul ilmi fii annahu basharun eh Busayri ne li nit mën a jot ci rasulilah yi doo weesu ni Muhammad nit la xaadim ni wax ji ëpp na nit la mais moo gën ci nit ñi moom rasulilah yi bàyyi Serigne Saliou nee na bàkkal sa mbër mais bàyyil ma fi doomi Fatima Diop bàyyi nga bàyyi Abdoulaye ak Aminatou حجونا ساي يجي نجنت فين نويل ويل بدي نبو إيه إيه إيه إيه أنا نبغى رسول الله للمصطفى أنا نصب رسول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ما وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم دنني للمصطفى نيلنا مصطفى سيدنا محمد إيه كي جنب ñëpp di Seydina Muhammad ñeel محمد sëriñ Tuubaa ne la ko yàlla jox mboolem ku ko jublu bëgg ca may ya da nga gëlëm ca leer ya ah ah ah bàyyi Seex Saalix nee na raamal wara xam nga fialu yi wala wala fialu yi juróom-ñaar la dafa am lu ñuy wax saxiixun mahmuuzun misaalun lajwafun lafiifun manquusul binaa mudaafu lajwa fu mooy fi'lu boo xam ni digg araf ba dafa am alif dafa am xarfu xalqin benn mu nekk alif wala mu nekk waaw wala mu nekk yaa xuruful xalqi ñett la benn dégg nga mu nekk dégg nga dégg nga xuruful illati bokk نتلا الالف والواو والياء وي بو فكي ديغ با دافا ام الف كوكو لاجي وف لنجكاي جابي بو امول بن حرف علا صحيح لنجكاي جابي مي بي باك بي سيرن توبا تود ديغ با دافا ام حرف علا موتاخ مو نيك لاجي وف بوني خافا صام نالا راما سيرن توبا ني راما ساكو كان مو ساكو eh eh mbindeef yëpp dañoo sàkku am na lu ñu bëgg ñoo ngay daw jëgëm ca loolu yàlla ni leen loo leen bëgg ñu ni ko ngëneel mu ni jox naa ko rasulillahi kilta yadayya laha saayun tulaazimuhu ايه كلتا يدي لا سعي تلازمه جزيت خيرا بنن نيوتي خمنا كلتا لا وخ سرين توبا داني نياري لخوم يا نياري لخوم كيلتا كيلتا يديني بومتي نياري لخوم لها نيال نكو سعي دف تلازمه بمي تقو بلوم ابن مالك نينا دنگ بالالف ارفع المسنى وكلا اذا بمضمن مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان وكبنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الف جرا ونصبا بعد فتح قد الف ابن ابن مالك ننم بن بن مسنا الف ليلى فاري يا لي نسب موم لي جاري شيخ الخديم ني كلتا يدين بوما تي نياري لخم لا هانيل نكو سعي جف جو خامني تلازم داكاي تقو بس نون وباس seigne ne am na loxo boo xam ni moom sidna mohammad day maye mais am na boo xam ni day duma noon رسول الله أمنا تخم إيه، خم ننت من تلاقة أو جن من تلاقة إيه ملاك مقرب من تخم لا تدند سيدنا محمد خالد المصطفى ني من مي كوتيوي من مي فك من مي جاكارلو موم ما جانو موم دند سيدنا محمد انوار ياك اسرار يا دي كل كل يا سيدي waaye gaa ñi loxo ci kaw bàkkaar ci suuf yaa sayidi yaa rasulallahi xus gis nga dama waxoon benn bis ni dafa am waaju bona bona bon ba ñu bon ñi bañ ko waa ji dafa bon ba ñu bon ñi bañ ko waa ji di bon di bon di bon di bon ba xëy dee ñu ne nañ ko yóbbu ci almeeri ñu bon ñi ñu bon ñi ni déedéet li ñuy bon bon bon kii moo ñu gën a bon ñu ni nañ ko suuli ci sëgu ñu baax ñi ñu baax ñi ni waa ji ni mu bone ba ñu bon ña ba mu faatoo bëgguñu koo denc ci seeni almel ñun kay baax na buñ ko fi suul ñu dem ba ca sën ba def waa ji xalaa mandir bàjja sangé ko ci san ba delu ko dem sen kër añi يا الله سبحانه وتعالى ني موسى لمن بن لا جتي يونت بي يالا يا سيدي يا رسول الله خذ يدي ايه موسى نيونو لو بري القران basu ilay dan na wax ni Moussa ak banu Israël tuuti ñu jeexal sama téere bi rasulillahi mi moom alquranul karim ñeenti yoon la ko yàlla tudd ci alquran من كان كسب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار رحماء بينهم ولكن وما محمد إلا رسول قد قلل من قبله الرسل ولكن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم ñeenti yoon yonent yàlla Moussa am na ko yàlla wax. yàlla ne Moussa demal ca waaju bon jooju sangal ma sangal ma suulal ma ma yóbbu aljanna. waa ji yonent yàlla Moussa dem ci armeel yi fekk waa ji tëdd mu sang ko sàng na ko jullee na ko suul na ko yàlla yóbbu na ko aljanna. xam nga yonent yàlla Moussa yonent bu mën a laaj la. daat ne ko yàlla mais waa ji ni mu bonee nan nga def ba yóbbu ko aljanna. mu ne ko gis nga waa ji li muy bon bon bon ku bëgg Seydina Muhammad la. waa ji dafa am tawraata di téere yonent yàlla muusa dafa am sama benn xasiida bu ma doon bind ma wax ca waxu safiiha manzilatan lam tazal tafuuq wa aala min za fa xaqiqi xam nga yonent yi téere bu leen yàlla jox donte Muhammad moomu ko danañ ca wax Muhammad ba nga foog ni Muhammad a moom téere ba waaw kay ca xasida boobu laa ko def waaye yont yàlla Moussa laaj na yàlla ni ko waaw yàlla nan nga def ba jéggal waa ji waa ji dafa amee tawraata di liir tawraat di gis may yi yàlla jox Muhammad mu ni lii ëpp na ku dul sama prophète di ko am daal di xotti page boobu mu dem ubbi beneen page ñuy wax ci muhammad di wax ci muhammad mu ne lii lan moo tax yàlla wax ko sama yonent di ko wax yonent keneen daal di xotti fooy boobu mu dem ubbi beneen paas ñu naan muhammad yonent axiru zaman nangam nangam nangam jalu jàpp ko mu ne yàlla lii ëpp na daal ku dul sama yonent di ko am daal di effacer page boobu mu daal di toog ba ci àgg réfléchir mu ne waa man su ma toppee lii may def ndax man dana ama ci téere ndax daa mel ni téere bi yëpp ci booy boobu rek lay wax mu ne damay jéem a dem gëstu ji kan mooy muhammadu rasulullahi mu liir téere bi ñu wax ko melokaanu sidna muhammad saa yu agsee ci rasulillahi da koy fóon yàlla ni ko bëgg gi mu bëgg Seydina Muhammad laa ko aaree yërëm ko yóbbu ko aljanna Sëriñ Tuubaa ni Seydina Muhammad may naa ko sama alal may naa ko samay doom may naa ko sama lépp moom moo ko moom moom jël màkka kon yal nañu yàlla defal mahabbatu rasulillahi maa ngi ñaan ci yàlla ku fi teew yal na yàlla jéggal la say bàkkaar maa ngi ñaan ku ñëw ren yàlla nga ñën ñëw déwén yàlla bu kenn manqué ku fi andi tiis wala aajo wala lu mën ci doon boo mën a wax ak boo mënta wax yàlla na yàlla wutu la ci fajal la ko ñi jël ay bor ci turtin yeeg tabaarakallaa natt yi teggi war a fayaat ak yaakaar la diis la diis dëgg rek yëpp rek yàlla na yàlla ci yëpp léeg nga yaakaar le diis la diis ñëw diis wala mu ñëw dikk maa ngi ñaan ci yàlla ku fi teew yal yàlla faj sa aju maa ngi ñaan ci yàlla xaj yoro yal yàlla dolli ko kàttan mën yal na yàlla dolli laa jàppale bu baax a baax loo mën ren bu ne yàlla nga mën lu ko ëpp yàlla dolli laa kattanal dolli laa defal wér dolli laa defal tawféq nga dëppoo ceeg ngërëmal sëriñ Touba ndax ñoom ngërmande rek lañ doon wut wa huwa akbar nee na ngërmande yàlla moo gën a màgg wax ni war zikrullahi akbar muni ni wa ridwanullahi al akbar ngërmande yàlla moo gën a màgg te sëriñ Touba li mu def yëpp dañuy ngërëmam képp nag laa ci sàkku jaare ku ci buntam bi di rasulillahi kon nak yalna la yàlla jaarale ci bobu le silsila bi jaahi nabi salaay salaam xaj Samba Ndiaye fa ñu tàmbale won nak ñu ngi lay ñaanal yàlla yal yàlla jàppale la yal yàlla sàmm la taar la sama dije bi di xaj Saturne moom it tabaarakallaahu koy ñaanal yàlla kër ga mu yàlla dolli koo barkeel yàlla dollee barkeel rajo bi yàlla télévision bi ñëw bi jaahi nabi salaay salaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.